yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko wax mu yaar leen ñëpp ndax dañu ni ko yaa fi gën te yow yaay royukaay bi te yàlla tagg na la fu ne kon yow boo doon boo ñu doon yar ci nan nga ni yare mu ni dama leen di yar ci situation bu ngeen nekk ngeen mën a dund ci situation boobu te loolu ku nekk war na xam ni kuñ ca yar kooku foofu la yar mën a yem kooku foofu la yar mën a yem Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Cherif nee na bi ñuy wax neena bi ñuy wax diggante yaa jooj ak maa jooj bi ñuy wax seen diggante ak seen histoire ak la Zul ni daj ci ñoom ci park bi mu leen parquet na mu leen def ba ñii ni ay peuple lañu ñii ni dunu peuple am na ñu dem sax ba delloo si yaa jooj ak ma jooj ci diggante ay ay continent ki ay réew ak yu kenn xamu ci question d'interprétation waaye nee bi ñuy wax seen wax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani dafa ni ma ki ko raconté histoire bi yëpp ni mu demee de A à Z mu ni ma la dëgg la amul temps dem ba parce que Cheikh fu mu toog mi ngi foofu mi ngi fi mu toog waaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani amul temps dem ba ni ma nga jëm horizon ndax bu toogee moom ma nga est ma nga ouest ma nga nord ma nga sud ma nga horizon ku xam martabaam noonu la mel waaw ku xam martabaam mooy du fekki dara ndax lépp a ko fekk waaw moo tax mu am ñoo xam ni daf leen di tànn ñuy ay mbindeef mu ni ñoom ñoo koy renseigner ci côté boo xam ni décidé wu fa dem wala décidé wu fa def visite mu ni ma ki ma renseigner seen mbir picc la te mu ni ma mooy saaxlal male ca siège yu yonent bi mu ni parce que moom laa fa yebal mu dem vérifier ma lépp waaw lépp lu ci allégation mu wax ko lépp lu ci dëgg mu wax ko waaw ba mu ñëwee ma ni ko doy nga yóbbante jarutul nu ni kenn te ku xam yaa jooj ak maa jooj foofu ñu ne buñ la nee saxlal dem na ci ñoom war nga xam ni capacité d'adaptation moo tax saxlal man dem ci ñoom saxlal xamul lu dul tronu yonent bi foo ko fekk fa lay tag fa lay taxaw picc bu rafet la waaw mais foofu rek la xam te foofu lumière kese la te pour nga dem ci ñël faw da nga dem foo xam ni non seulement grillage la mais non seulement suuf la non seulement atmosphère boo xam ni kenn xamul nu mel moo fa ne waaw atmosphère bu naq di bu naq di noyyi waaw moom mu mën fa dem ba visiter grillage ba yépp wër ko waaw quarante-huit mille kilomètres de long waaw dellu si ñëw li ko Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani Chérif ni woon mu renseigné ko de A à Z ba noppi dellu ci siège yonent bi loolu bu dul capacité d'adaptation kenn mënatul wax luy capacité d'adaptation te picc la te picc la kon gis nga ñi yàlla bind ñi yàlla bind ñu bokk ak ñoom millier bi kenn ku ci nekk am nga sa mission waaw waaye xay bu aussi kenn ku ci nekk ci ñoom fonk nañu ñoom sa mission waaw ndax dañu xam sa yitte dañu xam sa yitte moo tax ñoom dañuy yónni picc waaw ñoom dañuy yónni picc mu demal leen ndax picc ba dañu xam ni missionnaire ñoom dañuy yónni lu leen duggal ci biir géej ñu fay dund ñu wax ak ñoom ndax dañuy xam ni ñooñu ay missionnaire borom bi lañ ñooñ dañuy yónni luy naaw ci jaww ji ñu wax ak ñoom ndax ña fa ne ay missionnaire borom bi la moo tax dañu yaatal moo tax dañu yaatal